jërë ngeen jëf député Bougazelli jébbal na boppam yoon Le Quotidien moo ko bind ci xëtamu njëkk yëral journal bi coowal trafic faux billets li ñu koy tudd moo waral mu tekki ndombal tànkam ci assemblée nationale lenn li tax mu jël dogal bu ni mel moo di dafa bëgg may yoon di justice defub liggéeyam ni mu waree ba li ñu koy waxal ak di ko ci tuumaal ñu leeral ko Bougazelli ne passeport diplomatique bi ko assemblée nationale joxoon joxoon ko waa këram dana dajale yëpp delloo ko assemblée nationale Le Quotidien nañu yemu ca ndax démb demoon na wuy ji sandarma yu section recherche yi ko doon wóolu Vox Populi nañu show de Bougazelli ginnaaw coowal trafic faux li ñu koy tudd sandarma yi di ko convoqué mu leen di pont ak vent que vu demoon na démb wu ji leen waaye jotuñu ko déglu tey jii ci ngoon quatre heures ci lañ ko wooluwaat waaye moom député Seydina Fall mi ngi wéy di weddi ba léegi li ñu koy tuumaal bañ na ko ba wut na fanweeri avocat ngir ñu défendre ko lise ko nañu aatuma réeroon feeñ na Bouga génn na wuy ji na waa gendarmerie dajale na fanweeri awakam yu bale kenn ci awakam yooyu di maître Alaaji Diouf ne ñu ci journal bi député Seydina Fall deful dara ay noon ñoo ko kompolo teg seen seeni pexe bëgg koo yàq bëgg koo yàqal waaye du ñu ci mës a am ndam ñu taxaw défendar ko génne ko ci ñaaxo-ñaaxo yi mu nekke la si ne kay nañu Seydina Fall Bougazeli jébbal na boppam yoon démissionné ci assemblée nationale ngir yombale leen enquête bi enquête dina kay nañu démission gi kat bari na lu ci leerul ndax démb 6 heures ci ngoon laata muy dugg section recherche dañu ko laaj mu ne démissionné wul 20 heures njiital assemblée nationale di Moustapha Niasse génne ab communiqué di ca xamle ne 15 heures maanaam 3 heures ci ngoon ci la jot lettre démission bu député Seydina Fall Bougazeli ci la tribune député ba woon di Seydina Fall ma nga fay leeral li tax mu yeexoon a dem wuy ji waa gendarmerie nee na mësut a génn dëkk bi feebar moo ko téye woon yéenekaay bi nañu moom Seydina Fall ay waxam ak doxalinam bu leereet yeggul ca nàññi ñi ga ndax dafa weddi woon ne démissionné wul ci assemblée nationale ginnaaw bi président assemblée nationale Moustapha Niasse génn wax safaan wa ba dëggal ne Bougazeli tekki na ndombal tànkam bi mu bindee assemblée nationale ab lettre ne leen bàyyi na dem section recherche ne gendarme yi maa ngi ba mu delluwaatee këram fa la waxtaane ak waa lu bëri Amari Gueye bu l'observateur mi ko bind nañu waxtaan wa dagg nañu ko ay yoon ndax ay jooyee yuuxoo nettali na fa lu bare bare ci ni mbir yi moom Seydina Fall kitaab bu na ne ci juróomi nit ñu jàpp bu weesoo sàmbu xamu ci keneen wax na leen li ko yóbboon Touba xamal leen nit ne kii di Aliou Sall altine ci guddi daanaka ci sama canapé bii la fanaan la si ne kay nañu li am ba des daal moo di Seydina Fall Bougazelli bëgg ragg ab deram ci coow li ñu koy waxal tax na mu tekki ndombal wutu mooy jël palaasam ci assemblée nationale assemblée nationale googe ak la fa xewoon démb ci la Sud Quotidien xëy yamale xët mu njëkk mu di càmbar gi ñu doon càmbar projet de loi bi jëm ci reporter élection locale yi ak yootaan gi ñu yootaan mandat yu conseil yi journal bi nañu def nañu ko démb waaye bi ñu koy def ñi fare ci kujje politique gi dañoo faroon féewaloo ci kaw yi moo waral Aly Ngouille Ndiaye doxal ko ci na mu ko bëggee ci biir l'observateur a nekk la yéenekaay bi nañoo datu élection locale yi mi ngi aju ci li ñuy gis ci audit gi ñu war a auditer processus électoral bi source waa nañu waaye nag moom Aly Ngouille Ndiaye booy boo mu jug te fàggu ndax am nañu jug di ko campagnal ngir bëgg koo tëggi ak président Macky nu ñu ko jaxasee ak président la seet nañu seeti beneen projet de loi ubbi l'observateur mu di projet de loi bi jëm ci xeex ak calte gi am ci réew mi journal bi nee nañu njiit réew mi Macky Sall génne na yat wi ngir rëq ndiggi ñi salte réew mi loi beeg li ñu ci na ku ñu jàpp mi mi ñaari junni jàpp juróom-benn junni di nga ko fay am di fay taal na dëkk bi yëral source wa footballkatu Sénégal ba woon di am di Moustapha Faye journal bi nee nañu taakale na Aliou Cissé ba ànd ak moom génn terrain bi am di nee na problème Aliou Cissé moo di amul vision tey ñëpp gis nañu njariñ li Crépin Diatta amal équipe nationale bu Sénégal te daaw mu di 2018 bi ñu ko doon wax waxi Crépin Diatta li Aliou Cissé doon wax moo di Crép Crépin xale la xale yu ci mel ne John Lopy ak Kavin Diatta am di na dañ leen war a dugal ci équipe bi ngir ëllëgu Cissé il faut que dafay xaw a cohérent tuuti li mu ñu bëgg a forcé mu di Ismaïla Sarr mi nga xam ne club ba muy football maxee ñu football sax du ko teewee xamul lu max yee demee nga koy indi ci équipe bi loole mooy xamoo li ngay def te li nekk ci Ismaïla Sarr moo nekk ci Moussa Wagué seeni club duñ fa football kii di Cheikhou Kouyaté am di fay ne dafa war a gëm yàlla waajal boppam waajal départam te bàyyi xale yi ñuy doxal